on on devrait se poser des questions que Ousmane Sonko Bassirou Diomaye lui attaqué Amadou Ba on est dans une campagne électorale presque bipolarisée les deux favoris c'est Ousmane euh, c'est c'est Bassirou Diomaye et et, et Amadou Ba mais ñoom ils sont dans leur rôle c'est la bonne guerre est-ce qu'on devrait s'attendre à ce que ñoom ñu dérouleel euh, à Amadou Ba le le le le tapis rouge. est-ce que dañuy jàppale attaque attaque rek la attaque dafa am yi yu ba par exemple xanaa xamoon ni Ousmane Sonko mu ni euh, Amadou Ba moo tee moom génnul ci kaso bi moo doon def lépp pour mu bañ a génn ci kaso bi mais Amadou Ba li mu daj ci régime Macky ci biti moo gën a metti dugg ci kaso bi li mu daj ci régime Macky Sall ni ko daj ba fi toll nii moo gën a metti ñu dugal ci kaso la preuve ko euh, accusation yooyu soog ko wax kan la ko déggee ci kuréel Macky Sall mu ne Amadou Ba suuf la nguur gi ko déggee. ci Macky Sall la ko déggee. dama lay non nee na Amadou Ba suuf la nguur gi ba tey lépp ku tey lépp ci nguur gi ku ko kan moo ko mën a xam kuréel Macky Sall nañu nañu réfléchir un peu quand même Macky bi tey nguur gi rek moo ko mën a perte 40 pour cent ko. kon Sonko ci position nan la mën a comprendre ni Amadou Ba jël na nguur gi yëpp ci loxo Macky Sall nu mu ko mën a xamee.